mbokk yi sant leen gërëm leen ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM tey ñu am mbégte ci émission gox bi di dalal ki nga xam ni moom moo di daw Ndoye mu nekk ab euh, acteur de développement ci commune bu HLM mën nañu wax ne ci Sénégal wërngal këpp nekk itam conseil municipal ci euh, commune bi sëñ Daouda Ndoye ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. maa ngi sant di di nuyu mag ak ndaw góor jigéen sénégalais yëpp yi nga xam te déglu. Mm-hmm. rawatina ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ñi yeewoo alors ñun nag Sénégal dañu baaxoo rek di wax li nga xam ni moo di fan yi ab wopp bu nu sonal mu di ab mbas bu ñuy wax euh, coronavirus moo dal ci réewum Sénégal ba tax na am na ci am lim boo xam ne xaw na tuus tuuti euh, ñoo xam ne ñoom ñoo ko fii am ci dëkk bi ndax euh, li nga xam ni moom moo jëm ci wopp bi ana lan nga ñëw ci mën a wax ci li nga xam ne moom moo jëm ci sensibilisation bi ginnaaw yow bi nga nekkee acteur de développement ci gox bi nga xam ne nag moom moo jëm ci goxu HLM. alhamdulilah euh, comme ni nga ko waxee léegi rek euh, coronavirus bi nekk na feebar boo xam ne bett na askan wi bett na àdduna bi yëpp. Mhm. Euh, moom ay mesures yoo xamante ne ni dañ ko digle. Mhm. ñu koy digal suñu bopp di ko digal képp koo xamante ne ni doomu Sénégal nga. képp koo xam ne yaa ngi yeewoo HLM. Mhm. muy ay mesures de propreté. di seetal loxo yi ak yeneen ñi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ko. fi mu ne nii yaakaar naa ne information bi daw na. beneen bi si topp moom mooy di jaajëfal nag euh, beneen yoon euh, corps médical ak paramédical yi les corps médicaux yi nga xamante ne ni ñu ngi boobu léegi suba ak ngoon jaay seen nelaw yi jaay seen temps mhm. ngir euh, am benn esprit de sacrifice mhm. esprit de sacrifice boobu xam naa dinañ ci ñëw mhm. mu mel ni kon ay hommes et des de valeur ñoom ñoo nekk ci Euh, wàllum sant bi waaye xëy na manqué nañ leen ay jumtukaay ñu ngi leen jaajëfal di leen encouragé mm-hmm. waaye di ñaax population yeeg ñu respecté mesure de propreté yi mm-hmm. ba nga xamante ne nii euh, dinañ ñaan yàlla itam yàlla musul ñu si feebar boobu nga xam ne dugg na si Sénégal mm-hmm. euh, waaye tamit lëmbe na àdduna bi yëpp ndax sensibilisation bi yow it comme nga conseillé nga acteur nga itam ndax yaa ngi koy doxal sa gox yi nga dëkk effectivement ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey liggéey bu am solo mm-hmm. euh, fi mu nii sax may wax ak yow am nañ benn équipe boo xam ne mi ngi sur place mm-hmm. di dugg si kër karaat yi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk biir HLM mm-hmm. di fa joxe ay masque di fa joxe tamit ay euh, gel euh, antiseptique pour fexe ba nga xamante ne ni ñun Euh, suñu wàll dañuy combattre li nga xamante ne ni moom mooy euh, li jëm ci coronavirus boobu noonu. Mhm. ndax politique euh, mooy la gestion de la cité comme ni ko ñëpp xamee. Mhm. waaye wowul nekk rek jamonoy élection. Mhm. jamono ji yaakaar naa ni kenn ku si nekk si ñun. di di nekk acteur politique. woon na am benn taxawaay bu yees taxawal askan wi parce bis boo bëggee falu tamit da ngay soxla seen ay baat mhm. donc da nga leen di jàppale bokk ak ñoom seen ay tiis bokk ak ñoom seen ay méttit mhm. te nit boo ko jegewul xamoo ay jàngoro mënoo koo faj donc fi nii ñun ñi ngi ci liggéey boobu mhm. mosuñu see jóg nag waaye fan yi moom gën nañ taral ci ñu liggéey ci wàllu boobu ñu ngi ci liggéey liggéey boo xam ne liggéey boo am solo la liggéey conseil nga ci euh, commune HLM bu ñu waxee rek li nga xam ne moo di gox ak tey lan mooy si sa gis-gis ci li nga xam ni mooy commune bu HLM ci wàllum développement développement nag dafa bëri fànn waaye fànn wi ñuy waxtaanee rek bu njëkk moo di gox ak goxaan yi tey jafe-jafe HLM bu gën a jàmp tey lan la. waaw balaa may àddu si jafe-jafe waa HLM rek damay euh, jaajëfal waa HLM di leen nuyu beneen yoon. Mhm. comme ni ma la ko waxee léegi HLM nekk na zone boo xamante ne ni zone bu yéeme la. ndax euh, ñi ngi ko sanc euh, si année pratiquement soixante dix yi jëm quatre vingt. Mhm. jiwe ko donc HLM un ba HLM six. jaaree ko Sodida. fi nga mhm. xam ne foofu lañ nekk léegi. Mhm. jaaree ko HLM montagne ak yeneen gox yi nga xam te nekk nañ HLM cité post une partie de cité post donc may jaajëfal góor ak jigéen yi fay yeewoo. di jaajëfal suñu yaay yi suñu jigéen yi ndax euh, ay nit yu am jom nit yu am dignité. waaye nit ñu am personnalité ñoom ñoo fa nekk. Mhm. waaye euh, ba léegi boo xoolee HLM seen ay jafe-jafe euh, ba léegi des na ñu saafaral leen. Mhm. wax dëgg na yàlla waa ci fànn bu nekk rek boo jël rek am na loo xam ne war nañ koo def waa dama lay jox benn exemple rek xam nga tey man fi nga xam ne mooy sama gox fu laa cosaanoo fa la mhm. yàlla ak ma juddoo fa. di HLM 6 am na ay problème yu bëri yoo xamante ne nii ñu ngi koy jànkonteel. booba léegi équipe municipale bu ñëw ñu ngi ciy def ay jéego. di nuyu maire bi au passage xam naa mi ngi may dégg ak équipe bi nga xamante ne ñoom ñoo koy jàppale ñun ci conseil lañ bokk. Mhm. ñu ngi ciy wax ñu ngi ciy jëf ñu ngi góorgóorlu mhm. waaye lu fas daw ñu làbbali ko. Mhm. te man comme li ma wax rek ñun politique bi nga xam ne dañ koy def dañoo bëgg indi euh, benn. maanaam rupture Sénégal euh, dañoo bëgg jàngal ñenn ñi nan la ñuy defee politique ñu leen bëgg jàngal du prétention waaye ñu xam ni politique gestion de la cité la nit da nga war a sellal sa kàddu sellal sa xol. Mhm. parce que bu ñu la waxee da nga war a jiite da nga war a li ngay def mhm. tànk boo seq rek dafa war a nekk tànk boo dee maire dafa def safaan tamit dañ koy wax ne ah monsieur le maire li nga def nii yaakaar ne boo defoon lii moo gën ndax conseiller wala mooy conseiller. Mhm. mooy mu wax li nga xam ne mooy xalaatam. waaye bu fekkee ne da wax tamit te sa xalaat du Mm-hmm. looy def lu mooy siwal ko bu ko defee ëllëg kenn du la mën a joxoñ baaraamu tuuma mm-hmm. bu ñu waxee nga nekk à l'aise xam ne yow waxoon nga ci mm-hmm. te politique dafa am lu si am solo mooy la constance mooy sa waxu démb sa waxu tey ak sa waxu ëllëg suñ ko nattee ci balaanu si si balance su dëgg mm-hmm. wax bi dafay méngoo mm-hmm. maanaam balance bi dafay dafay def kàkk dafay équitable mm-hmm. moom moo tax euh, fi mu ne nii ñun ñu ngi am benn rôle d'alerte waaye pour répondre si sa question yi par rapport li nga xam te ne nii wax nga ko euh, lu si demee ni HLM fi ma juddoo wax naa la ko am nañ ay jafe-jafe yu bari ndax plus de dix ou douze ans am na benn terrain de football bi fa nekk ñu ngi koy tabax terrain bi tëw a nañu wax waa HLM lan moo tax terrain de football bi nekk ci marché ba lan moo tax ñu waxoon dañ koy def benn genre stade lu tax terrain stade multisport nga xam ne day am ay piscine gis nañ maquette bi mais maire bi bañ ko dalalee fii nee na mu ngi ciy def ay jéego de ah yow def nga ci jéego 2014 lañ la fal 2015 2016 2017 2018 2019 nga toll ci juróomi at hmm. ngay def ay jéego xanaa kon da ngay yott parce que jéego yi ngay teg bu fekkee ni waxagoo Sénégalais yi ak euh, waa HLM dara lu la yaakaar naa ne jéego yooyu du sotti. Mm-hmm. nañ wax problème mu terrain bi. Mm-hmm. lan moo tax ban luubal moo ci ne loolooy dëgg. Mm-hmm. da jàpp ne dafa am luubal am na mag man ma la ko wax fii nii. dal la Seydina Omar radiyallahu anhu daan na wax lu yéeme. nee na dëgg suufeel ma te néew na bu mu amee moo ma gënal fuuf fen yëkkati ma te néew na bu mu amee. xam ne dëgg du ko suufeel fen du ko yëkkati. looloo tax man fi mu ne nii lépp loo xam ne mooy dëgg. boor bu mu munti nekk rek ñun dañ koy wax. moo tax ma wax la ni foofu am na luubal ndax loo xamante ni yaa ngi siy def jéego c'est surtout te yow ñu jox la compétence yëpp. Mhm. nga nekk la maire war a jël ay ay bataaxal wala war a signé ay kayit. Mhm. yoo xam ne boo ko signé euh, mbir bi dafay sotti. nga ñëw leeral loolu lan moo tax sottiwut maa ngi ciy góogulu maa ngi ciy dox mën nañ ko fii ba du déwén du bouger loolu benn problème la ci waa la mhm. beneen bi ñu ngi jaajëfal maire bi parce que maire bi defoon na ay jéego si. déguerpissement ñi nga xam ne ñoo nekkoon aux alentours du marché. Mhm. occupé que de manière anarchique waaye problème bi mooy amul suivi. Hmm. ba mu defee déguerpissement benn at ñaari at ñetteel at bi kenn gisul dara France xëddem ñeenteel at bi kenn gisul dara. Mhm. mu mel ni loolu ñu doon def sax dañ dañ ko bàyyi. donc nañ wax. maire bi ak équipe bi ñu àndal nañu wax fan nañu def mhm. fan nañ fan nañ teg loolu la mhm. moo tax déguerpissement amul mucc beneen bi bopp ba mu toogee fii nee na li nga xam ni moo jëm tey HLM ci xàll yi mhm. tey dafa am beneen xar kanam bi nga xam ni wane nañ ko ci amul benn xar bu bi ñu wane man maa la ko wax fii nii man je suis un scientifique man soo may wax dara da nga may indil ay preuve tegal ma ma mën gëm li ngay wax waaye doo ma wax ay kàddu rek ma gëm ko te nit journaliste maa ngi leen di encourager si liggéey bi ngeen def waaye loolu tamit da ngeen am benn esprit cartésien nit li mu wax fi ne nii dañ ko mën a peese xool ndax li mu wax dëgg la ngeen wàcc sur le terrain def ay investigation bokk na si problème yi nga ma laaj ci problème HLM yi mooy mairie HLM bi nga xamante ne nii ñi ngi ko amee ci corniche bi mhm. depuis sept ans mairie bi mënul àgg nañ ko expliquer sénégalais yi nañ ko expliquer waa HLM mhm. mairie R plus 2 la ma R plus mhm. mu ne nii boo fa demee bis bi may wax ak yow lu kéemtaan kenn mësul gis lu mel noonu. mooy lan nga am mairie boo xam ne sa tur la nekk nga mën faa nekk te amoo location. Mhm. nga dem di louer HLM 1. Mhm. benn benn benn bâtiment. boo xamante ne ni nañ wax ñaata la ñuy louer bâtiment bi nañ ko wax waa HLM. ak weer bu nekk ak wala ñaari weer ñu nekk ñaata la ñuy fay. li ñuy fay mi ngi toll si que ñaari million ñaari millions boo ko jotee par weer nga def ko at day toll si vingt quatre millions. vingt quatre million nga def ko deux ans day toll si quarante huit millions quarante huit millions boo ko defee quatre ans day toll si quatre vingt seize millions. Mhm. boo ko defee euh, cinq ans parce que mandat bi def na cinq ans day toll si cent vingt millions. Mhm. HLM ñi ngi jël seen cent vingt millions di ko sànni si àll bi alors que xajoon na si seen bopp lan moo tax. Mhm. maire bi boobu ba léegi toppatoowul maire bi pour ñu mën fa tuxu ñu àggali maire bi ñu tuxu fa. Mhm. waaye ñu ñu ñu ñu ñuy dem ñuy dem euh, di di di loué. Mhm. ba pare foofu noonu fi mu ne nii dépotoir lañ ko def loolu ñu ngi koy condamné. Euh, rafetut ci askan wi. maanaam déguerpissement am na lu mu jaf jaf ay jeedo nee bu defee lu baax dañ koy wax. waaye dafa jël ay oto mhm. yoo xamante ni nii oto yu yàqu la ay oto yu màgget ñàkkul ni si déguerpissement HLM 1 ak ñi fa nekk mhm. ñu dem jël ko dool ko ci mairie boobu noonu def ko dépertoire loolu tamit lu jéggi entendement la te loolu maire bi def na ko bokk na ci problème yi ba léegi bokk na ci problème yi mooy na maire bi expliquer joxe ay raison lan moo tax cinq ans yi mu def nii liggéeyul maire bi liggéeyul la ah. maire ne travaille pas c'est juróomi at juróomi at déguerpissement la fi def moom lañ gis mi ngi góogóorlu def na ay aide <laughs> waaye bi ñu la falee nga nekk maire waxoon naa leen ko ci premier conseil municipal bi ñuy ree <laughs> fanuñ la pour ngay joxe ay aide yi dañ ko war a bàyyi parce que benn somb colossal la boo xamante ne dinañ ci ñëwaat benn bis <laughs> hmm. euh, ñi ngi koy jox askan wi dinañ ko jox par de quinze mille vingt mille ah mu ne loolu ndimbal la waaw ndimbal la hmm. waaye ndimbal na ciy fekk loxoy borom hmm. loo bëgg a wax foofu ku song ñay ci pënd pënd baa lay sorox ba nga dee li ma bëgg wax moom mooy bu mën gawar taxee nga maf ñaaw ñaw san ñaw sandu mhm. loo am jëndee ko teg li ma la bëgg wax rek lu simple la mooy mhm. nañ jël enveloppe boobu xool jeunes yi nekk HLM mhm. yaa ngi dégg parce que quinze mille bi ñu la ko joxee fête tabaski wala korité du la jëriñ dara donte am na ñu muy jëriñ wax dëgg neex yàlla mhm. ah, def na effort foofu waaye loolu la maire yëpp di def teguñu la fay nga def la même chose que tout le monde mhm. da ngaa war réfléchir mhm. loolu lañ la fi tegee donc da ngaa xool jeunes yi nga xam ne liggéey ñul nga dajale leen créer ay PME PMI yaa ngi dégg boo créer ay PME PMI nga xool noo leen di financer ñoom ñu rembourser nga jël na wax tamit lan moo tax ñun rek ak géejawaay ñoo fi am ay terrain de football en cascade Dakar Sacré-Cœur ñi ngi loué terrain de football diggante vingt cinq ak soixante mille. Mhm. lu tax defal ñu ay gazon synthétique lu tax defalu ko waa HLM. Mhm. terrain yooyu nu mu ah, rafetee sa stade parewul ñu lay defal synthétique. waaw à défaut de grive on mange des merles. Mhm. ko am ndey nàmp maam. Ah. te bu feccam xale neexe nday jaa jàpp si si mbagg ba quand un enfant a la virtuose de la danse c'est parce que les parents ses parents le tiennent par les épaules monsieur maire ak ñi fi dëkk liggéeyul si mbiram la nekk mook ñi mu àndal at mu ne war nañ wax budget HLM ñaata la toll. Mhm. war nañ di rendre compte euh, waa HLM ñi fi nekk. leen rendre compte yéen conseil ñun conseil dañuy rendre compte waaye ñu ñun conseil ñu ñoo fal maire bi ñun kese. Mhm. population moo leen fal. Mhm. mandat électif la yor dafa war a rendre compte ñi nekk si ci population bi. man boobu léegi maa wax ne dañoo war a def maire dañoo war a def séance publique at mu ne. maanaam taxaw taxaw janook askan wi wax leen ni lii lañ def lii lañ def li mhm. nga ñu dénk fii la ne amu fa dërëm bu ne fii lañ ko dug jëlee fii lañ ko dugal amu fa beneen question bi may laaj maa ngi ñëw mhm. mooy nañ wax tamit euh, sénégalais yi nañ wax waa HLM mhm. fan la budget mairie bi di jaar loolu war nañ kaa wax budget mairie bi HLM maa nañ koy wax tey ndax fay lépp lay wax mi ngi toll entre six cent ak un milliard deux cent at mu ne diggante six cent milliard un yaa ngi dégg. Hmm. loolu moom mooy dëgg. Hmm. leneen li nga xam ne ni xew na. Hmm. au laa de loolu. budget bi duñ ko le lu si ëpp. léeg-léeg dañ ko boucler waaye lu tax duñ ko boucler nañ ko wax euh, Sénégalais yi fan la xaalis bi di jaar. parce que perception ñoom ñoo war a ñëw collecter xaalis ci marché waaye ñun dégg nañ déglu nag bu baax lu may wax. ñun dégg nañ ni. am na ñeneen sàmba booy yu tekkiwu dara. di jël xaalis waa HLM. di dem foofu am na benn at loolu xew na di ko def lan. di ko collecter di collecter xaalis di jaar. au ñuy def ay ay ay ay ay. Mm-hmm. kayit yu yu baaxut. Mm-hmm. yow yow commerçant yi di leen jox di leen jox xaalis. loolu man alerté nga ko ko yamuma ci alerté ko. Mm-hmm. Euh, conseil municipal bi de moo moo tax ma ne la ba xam yow yeggee nga ko équipe yi ni ànd bi woon dugg mairie HLM si gafaka mairie HLM pour waa HLM du xaalis boobu mooy dugg nañ ko da nga jàpp ni ñaata mooy dugg kon. waaw lii dugg man du ma ko wax fii waaye man damay poser ay question donc mhm. man damay poser ay question pour waa HLM yeew mhm. nañ fal ku dëkk HLM juddoo HLM koo xam ne bu ñu ko falee mhm. du tal tabax ay ay ay kër yaa ngi dégg am ay oto yu rafet waaw ba pare gëmloo nit mi ngi liggéey teg def fi dara man maa ngi lay laaj question gis nga à part foofu laay teg sama baaraam à part à part bii may wax ne ñu ngi ciy góogóorlu lu baax la à part déguerpissement bi ñu ngi ciy góogóorlu lu baax ak léeg-léeg ñu ñaanaatu yenn société yu mag yi ñu may ñu don à part loolu le maire ne travaille moo tax maa ngi renouveler sama candidature di wax ni HLM. Mhm. nañ ko jox aux HLM moi mhm. HLM les HLM aux HLM moi. nañ ma jox mairie bi ñu liggéey ñun ñëpp mais dans la main ñu ànd. ok kon donc mbokk yi 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88. 628 86 86 yéen itam mën ngeen bugg ci émission bi bokk ci jébbal ko ay laaj ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci conseil bi nga xam ne nag ma nga fa ak tey ah, ban yéene la am comme wax na ko léegi nee na dafa bëgg ñu jox HLM ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dëkk ci HLM waaye ndax balaa ñuy ñëw ci candidature boobu waaye li nga xam ni nag mooy wax nga ko fi ndaxam am yéen itam. conseil yi yéen a ngi joué seen loor ndax alerte rek la war a doon est-ce que waru leen itam bokk ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci contribution commune bi. man jàpp naa ni ñi nga xamante ne nii wala bokk naa si ñi jàpp ni ni ñuy falee maire mode d'élection bi dañ ko war a soppi. ah soppi nañ ko dinaa mel ni. kon loolu ñu ngi si sant j'espère que danañ ko appliquer bañ a def yëfu politique politicienne. parce que fi ne nii li tax ma lay wax loolu mooy. da ngay nekk ci conseil municipal boo xam ne nii boo leen nekkee cinquante quatre conseillers. Mhm. moitié bi dañuy raw gàddu la maanaam liste majoritaire la ñuy jóge mhm. euh, à part liste majoritaire bi ñeneen ñi si toftaloo plus fort de reste lañ leen di jox mhm. mu nekk ay benn wala ñaar wala ñetti conseil mhm. waaye ci conseil bi nga xamante ne nii moom ngay bokk da ngay néew doole foofu maanaam li ngay néewee doole mooy doo am benn compte pouvoir ba bu gaa yi bëgg jàll la dara dañ koy jàllale mooy comme li xaw assemblée fi mu ne nii rek nga am ne majorité mécanique la bu maire bi bëggee jàllale lu mu bëgg jàllale rek dañ koy voté conseil municipal mhm. buñ ko voté conseil municipal euh, gars yi la ko mhm. man nag maa ngi waxaat lu leer mhm. conseillers yi ay nit de valeur et dignité leen maa leen di nuyu mm, ba ma duggee si conseil bi fekk naa fa mag ñu am jom mag ñu am orma am kersa am dignité mën a liggéey lool am xalaat yu rafet waaye le poisson pourri par la tête maanaam maire bi moom moo liggéeyul si la commandant ou chef d'équipe n'est pas à la hauteur ñi mhm. équipe bi lu mu compétence compétence du feeñ mhm. waa léegi donc mhm. donc man li ma la bëgg a wax foofu rek moom mooy nit yi fa ne ñi ngi góorgóorlu ñi ngi liggéey waaye bu dee mairie bi dafay fonctionner te euh, bu dee cent pour cent mooy budget bi si budget bi nga xam ne moom la mairie bi di fonctionner mairie bi ci boppam moom dafay lekk soixante pour yaa ngi may dégg quarante pour cent yi nan la ñuy liggéeyee les pouvoirs mos ngaa gis gis loolu donc c' le système qui n' pas bon. il faut qu'on essaie de revoir le système. parce que tey si li nga xamante ne nii mooy mooy budget meilleur HLM. Mhm. ñoom seen charge fixe yi la ñuy fayee ko si ndox fay ci courant. Mhm. ak li nga xamante ne nii moom la gars yi di fay si ay salaire mhm. loolu rek lekk na budget mairie bi. kon ñoom kan la ñuy liggéeyal waa HLM la ñuy liggéeyal wala wala seen bopp maa ngi lay laaj question boobu. su su ma la déggee ngay wax daa mel ni HLM daal dara jago fa. am na yu jag waaye yi yàqu moom moo ëpp te ñi ñoom ànd ak bi dama lay wax gis Euh, ale bi nga xam ne nii mooy suñu suñu genre corniche bi nga xam ne foofu la nit yi di explorer. Mhm. ñu sax pour defaraat ko. ah moom moom mu ngi koy defar de nee na. mu am na ci ay projet yu ah, wër. Ah, yow yow mhm. fan lañ la benn at nga am projet. ñu fal la ñaareel at nga am projet. Mhm. ñu fal la ñetteel at nga am projet. ba juróomeel at yi mat nga ne yaa ngi si projet ba tey kan ngay liggéey. loolu laaj bi ñu la war a laaj. te nañ wax waa HLM fan la ñuy dugal seen xaalis. tey dinaa la defal révélation bu garaaw bu nga xam ne conseil yi fa nekk am nañ njëriñ ñun wax lañ mën ñun wax lañu mën gis nga at bu ne mhm. maire bi ak ñi ma àndal mhm. ñi ngi dajaloo di dem sali déglul bu baax li ma lay wax mhm. bu ñu demee sali dépense fa vingt cinq millions xam nga lu leen fiy def pour formation ak pour réfléchir sur les problèmes des HLMois man gëwmuma loolu def nañ ko benn at def ko ba ba juróomi atu mandat yi man musuma see dem at mi njëkk bi ma ko defee nee naa leen na ngeen ragal yàlla ndax dañ leen fal te bis dina ñëw dañu leen laaj li leen li leen falee lan la ma ne leen bu dee da ngeen di réfléchir pour les problèmes des HLM moi des leen HLM boo leen desee HLM doo am benn problème ngeen ut saal HLM foog nga ne ni mu day amul saal bu mën a continuer cinquante personnes ngeen jël benn toggkat ku dëkk HLM même boo leen koy fay trois millions vendredi samedi dimanche fi may jeexalee may maa rek léegi ma laayee la biir ma ma ma leeral waa HLM ñoo xam seen xaalis muy dugg su ñu jëlee kenn vendredi samedi dimanche def ko ñetti fan. Mhm. kooku lu ñu ko fay jar na ko même bu dee 3 millions. Mhm. yeneen 22 wala 20 millions yi ñu économiser ko pour problème mu HLM. at bi ñu ko defee dama leen bind lettre. Mhm. ñu defal ma décharge maa ngi ak bi indaale naa ko pour wan la ko pour bu ñu bëggee weddi wala ku fi woote fii di jéem a weddi loolu loolu lu am la. bu ñu demee foofu xawaare lañ fay nekkee ak noos ak lekk HLM ñoom dañuy nam waaye maa ngi leen wax nañ bàyyi xel. bis ñu laaj leen. moo xam askan wi la moo xam feneen lañ leen di laaj. bu ñu jëlee xaalis boobu waxoon naa leen nañ am na école sàngam mhm. toit yi dafa yàqu nañ ci def ay toit mhm. école sàngam dafa coupé ndox nañ ci defar ndox yi mhm. fay facture yi nee naa école sàngam xale yi amuñu toilette bu ñu bëggee dem gaaruwaay dañuy dugg ci kër yi di ñaan te xale yi war nañ yërëm seen parents yi jëndal leen au moins fourniture foogoo ne xaalis boobu mënoon nañ ko jël fi mu ne nii buñ ko épargne woon vingt cinq millions par at. Mhm. boole koog cent vingt millions yi ma la waxoon sànq. boo xoolee. Mhm. day nekk presque. Mhm. Euh, juróomi at yi cent vingt cinq millions. mu nekk deux cent cinquante millions yu ñu sànni ci àll bi. dañuy dem di noosi. donc euh, génne génne itam dëkk bi xalaat réfléchir euh, réfléchir ci yenn fànn lañ war a a jaarale jëmale kanam gox bi itam da nga foog ne loolu gënul. gën na loolu déggoo li ma la xam ma ne loolu lu baax la. waaye dama ne na ñuy dem Saly. dafa def ñetti fan de retraite. di noos luwa ay bus. Mhm. bu ñu demee ba foofu noonu ñu noppaleku mhm. tëdd fu nooy mhm. bu ñu tëddee fu nooy ñu lekk-lekk yu neex ba ñu paree ñu réfléchir problème HLM dellu si réflexion bi baax na lépp bonut waaye dama ne nañ ko def biir biir HLM ku nekk nga dem sa kër falu ñu la pour ngay noppalu bu ñu la falee xamoo sa responsabilité da ngaa war a nekk si coono njiit bu ñu la falee woo nekk buur da ngaa war a nekk jaam parce que jaam boobu noonu ci ngay mujjee nekk sànq. Mhm. parce que da ngay jaamu soxlaay askan wi. waaye faluñ la pour ngay def li la neex. Mhm. ak di def luy nooy ci yow. Mhm. waaw keroog maa ngi dégg benn reportage bu yéeme si Mamadou Dia. ñu ne pajaas la daan tëdd pajaas yi dañ si tegoon ay ay ay briques ñun ay njiit yu mel noonu lañ bëgg. looloo tax may alerte sénégalais yi ak di alerter waa HLM. ak yeneen yu mel noonu yoo xam ne bu ñu ci àggee. danaa leen ko wax juróomi at yi fa nekkoon nekk conseiller fan yii danaa def conférence de presse fii ci marché HLM. la nga xam ne nag moom moo jëm ci marché bi nee na marché bi ak li muy rëy rëy rëy am na dañu jàpp ni euh, moom da ci génne koppar gu bari mais euh, safaan bi la ndax yow lan nga ci sa gis-gis marché bi ak li muy rëy rëy yëpp. man ànduma ci ak maire bi biñ la falee da nga a génne ay xalaat te maa ngi wax waa HLM nañ def attention marché bi ay branchement anarchique ñoo fa ne fu ne lañ xëccee courant bi bis dina ñëw yeneen marché yi nu ñuy tàkkee yàlla bu yàlla def loolu yàlla bu loolu am. mu tàkkee noonu bu ñu moytuwul. loolu woon nañ ko réglé réglé wuñu ko. monsieur le maire nit ku baax la. waaye ni may jëfe eh, contre ñu ko waaye li muy liggéey ak ni mu koy defee moom lañ contre moo tax koy dénoncé. moom si nguur ak Khalifa Sall maanaam mandat Khalifa Sall. dafa nekkoon responsable troisième adjoint au maire. de Dakar doy caaxaan. waaw nekk responsable des marchés. yaa ngi dégg xam na bu baax na ñuy tojee xarandende ak nan la ñuy fexee lijjanti xaalis si marché yi. waaye man mënu mooy concevoir HLM am lu gox yu bëri amut. Mhm. Solida mii ngi fi. Mhm. mu nekk benn zone industrielle. boo xam ne minimum minimum mhm. quatre cent entreprises ñi ngi fi. impôt bi ñuy génnee ak patente yi ñu leen yi ñuy fay fan la xaalis bi dugg ñan ñoo koy récupérer ah, monsieur le maire ñu ngi lay laaj loolu. Ah, eh, mu ne Solida bi nag état moom mooy pour ñëwaat pour HLM. pour marché bi. boo xoolee marché bi. woon na génnee xaalis bu bari. marché HLM mooy marché bi ëpp bayra ci Dakar. nangu na bayre mi nekkoon Sandaga loolu la ñëpp seetlu Sandaga fi mu ne nii HLM moo ko ëpp bayre am na lu bari loo bëgg loo xam ne da nga am si soxla si jumtukaay boo ko soxlaa HLM ngay dem hmm. waaw te ba léegi waa HLM mënaguñ si gis seen bopp yaa ngi comprendre mhm. commencé woon na góorgóorlu waaye il a dafa commencé relâché wu mhm. mu ne nii am na ñu dëkk si gox yooyu noonu bu ñu amee ay néew wala ñu am ay problème dañuy am problème pour génnee leen ci marché bi loolu problème bu yàgg la indi aussi ndax jaaykat yi ndax jaaykat yi parce que doo am foo jaarelee sa néew ambulance bu ñëwee du ma ko mën a jël mhm. ku feebar kazalika te mënoo am sa sa sa sa malade wala mu nga am koo xam ne nii Eh, ndem si yàlla la nga koy fay bàyyi ba guddi mhm. pour mun koo génnee ak yeneen ak yeneen yu mel noonu mhm. donc HLM bëri na ay problème mhm. HLM bokk na si communes yi nga xam ne taux de délinquance bi ak toxum dorog toxum euh, <laughs> yàmbaa bi ñax mi ñax mi ak sinebar ak dorog bi bokk na si yëpp bëri na fa bëri na fa lool te loolu maire bi mi ngi ciy def ay jéego waaye jéego yu muy def doyul parce que la mairie même bu maire bi amee volonté mhm. la mairie n'a pas assez de moyens mhm. mais ces moyens là c'est au maire d'aller les chercher mhm. parce que dañ ko fal pour loolu donc moom li mu lay ne marché bi gisul xaalis wala xaalis bi li muy war a génnee génnee ko du lay pour ba marché bi di génnee li mu war a parce que domaine de compétence transféré la fi ma bëgg a ñëwee rek mooy question bi ngay a yàlla yaa ngi may waaj a laaj ni solida gisuñu xaalis bi parce que état lay dem loolu nga may waaj laaj ma tontu la bala nga ma koy laaj solida fi mu ne nii xaalis bi si mairie HLM la war dem la war a dem wala fa lay dem. fa lay dem fa lay dem. waaw léegi nag ñoo koy du la wax ñaata la. Mhm. parce que am na yoo xam ne du ma man li ma fi indi tey mooy alerter. Mhm. conseiller rôle muy joxe xalaatam bu ñu ko mhm. déglu mu alerter. waaw donc. xaalis bi nañu wax moom na de état moom mooy jot li nga xam ne moom moo jëm ci koppar gi. waaw loolu. Eh, waaw te ba tax na sax ci li nga xam ne moom moo jëm ren ci RSE bi fas ci la fas yéenee dugal ñi nga xam ni ñoo di ndaw ñi ñu war ci am xëy ndaxam am yow da nga jàpp ni xaalis bi. demul ci état ci mairie HLM la dem ban justification nga ñuy jox ci loolu. mairie bi. Mhm. na wax ñaata emploi la créé. defu fi dara. xam nga defu defu fi dara. man dama lay tegal justification waaw ma tegal justification. Mhm. xale yi fi yeewoo boo demee da leen fekk fi ne nii ngi may dégg ñoom ñëpp ñu si bëri mhm. bi amul benn entreprise bu mu teg. wala benn initiative boo xam ne teg na ko pour xale yi mën a liggéey. am na nag yi ñuy dëgg neex yàlla équipe bi jàmbaar lañ ñu ngi góogóorlu. mais Euh, loolu du dara face à ce à li nga xamante ne nii moom moo leen di xaar. HLM ndaw ñi dañoo am yaakaar si maire bi waaye maire bi góogoowul dégg nga wax ci. Mhm. li ma lay wax nii du waxu politique. Mhm. dangay wax loo xam te ñun kii wax xam na li muy wax bu baax. Mhm. donc am na initiative yu yu bari yoo xam ne ñun ba ñuy campagne defoon nañ ko dama lay jox exemple rek pour nga xam ne liggéey ñu. senegal rek ngay ñëw di romb àll kett ndeng àll yu yaatu yoo xamante ne nii dafa tàggatee bi kenn defut fa dara jeunes yi ñu si ëpp si ñun dañoo war a dem bay bëgg tedd te nanguwoo liggéey àjjana lañ ko yaakaar ñun nii dañoo war a góor dafa war a def benn subvention si xaalis bi ma la wax deux cinquante millions yooyu bu ñu ko jëlee mhm. ku taxawal benn entreprise am esprit d'entrepreneuriat bu leer. Mhm. ñu mën laa jox projet nga dem yaa xam da ngay bay yaa xam da ngay jënd jaay yaa xam looy def. Mhm. entrepreneuriat mooy développer dëkk. mbay mooy développer dëkk ñun amoon nañ benn initiative bu tudd toolu waa HLM bañ ko waxee ñii ree. Mhm. ma ne leen mairie bi lu leen tere ñu dem xool partenariat ak yeneen maire yi nga xam ne ni seen zone yi dañoo am ay tool yu yaatu. ñu defal leen benn genre concession defal leen bàyyi. maire bi di jël xaalis di investir foofu noonu ñuy bay soble di bay tamaate di bay li ñu mën a bay mhm. jeunes yi dem foofu dafa liggéey di jàng liggéey bi ñoo leen utal ay formateur bu ñu paree jël ko jaay ko waa HLM mhm. indi ko si marché bi ne lii toolu waa HLM la jóge mhm. population bi gis si seen bopp bu gars di jaay kilo bi nangam ñoom ñu jaay kilo bi leneen ak yeneen initiative yu mel noonu yoo xamante ne amoon nañ ko gis nga ma joxaat la beneen pour nga xam ne liggéey ñu nga sur le plan marketing xam nga ñun façade bi ñu am bi jàkkaarloog autoroute foofu mënoon nañ ko mooy miiru autoroute bi ngay gis noonu mhm. foofu bu ñu fa defoon ay panneaux publicitaires luwee ko ay pâtissiers ak entreprises yu mel noonu loolu du ay revenu mhm. moo tax ma ne la xamuñu ni ñuy def man xam naa montage financier mhm. bu ñu tëlee dañoo war a bàyyi ñi mën ni ñëw montage financier yi nga xam ne mën nañ kaa def pour HLM un ba six nekk ay gazon synthétique ba ma leen ko waxee conseil municipal dañ ma doon reen ne man damay lépp waaye xam-xam la boo ko jàngut doo taari waaye ñu wax ci Solida parce que faaw nga leeral foofu rek Solida parce que nee li ngeen ci jot bariwul moom moo tax Euh, entreprise dañuy gis ni mairie HLM lépp gonga waaye lu lu lu ñëpp yaakaar nag nekkul ni looloo am foofu. même ba seetlu nga li nga wax liñ siy jot bariwul kon ñu ngi jot loolooy problème moo waxul jotul de liñ siy jot bariwul kan mooy jot li muy jot bariwul ñaata lay jot loolu naka leeral moo tax ma la on a un sérieux problème avec la transparence njiit da ngay jub li ngay def ngay wax li ngay wax li ngay def ngay wax mhm. li ngay wax ngay def mhm. waaye tu ne peux pas clignoter à gauche tourner à droite HLM nañu poser question yëpp maire bi mhm. laaj leen seen xaalis fu mu jaar donc euh, mais yow li nga fi jot a wax rek ci li nga xam ni moom moo jëm ci mbir mi mel waas nga waas nga maire bi liggéey ñu tey moom Daouda est-ce que tey yow yaa ngi jël ay proposition di ko jox ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di mairie bi comme ça buñ ko mënee jëfee ñu jëfee ko loo xam ne mun nañ ko ci def ñu def ko loo xam ne mënuñu ko ci def ñu wax est-ce que tey dafa jot ngeen di alerter rek est-ce que jotul tamit ngeen def proposition euh, maire bi. wax naa la ne opposition rôlam du opposé wu de opposition rôlam mooy mu proposer. Mhm. indi ay solution wax naa la da nga posé question ne ma lan mooy problème mu HLM ma limal la problème yi nga xam ne mairie bi daf sa télé. Mhm. may ne la ay solution wax naa la léegi benn solution waa HLM. Mhm. am na beneen garab bi ñuy wax nebedaay mhm. defoon nañ ci tamit ay études yu poussé nebedaay dëkk yu bëri moom la ñuy mooy li ñu toggee cere mbuum xam naa ni yow daraame daraame nga doo donc xëy na mbuum du la intéressé mhm. mais yaakaar naa ni ki nekk fee ca xarala bi moom dafa nuroog séeréer xam naa ne mbuum dana ko intéressé waaye li ma bëgg wax foofu rek moom mooy hmm. euh, mënoon li ñu bëgg li ñu mën a liggéey fii Sénégal bari na wax naa la nan lay def ba créer emploi hmm. si wàllu marché bi wax naa la nan lañu defee ay panneaux publicitaires loolu tamit exemple la hmm. fi mu ne nii boo demee HLM 6 sama waa koñ maa ngi leen di sargal di leen taragal eh, ñoom gis nga ni maire bi xam naa ne dafa mel ni man li ma nekk conseiller nekk foofu noonu te di koy wax dëgg neexu ko moo tax def nañ defar nañ tali yëpp ba mu des tali HLM 6 mooy bi jege ko corniche di génne si guy gi tali yëpp defar nañ ko HLM 1 ba 6 ba mu des tali boobu maire bi na wax lan moo tax defarul tali boobu bu dee jàppoo ni euh, dafa foofu rek yeggagul foofu àgg na dépassé na foofu ba dugg na cité port mhm. defar nañ tali yu foofu yooyu mhm. léegi nag fi mu ne nii nag man damaa bëgg maire bi mu leeral waa HLM mhm. na wax lan moo tax defarul tali bi ndax daf maa mere wala li ma koy wax dëgg moom moo tax nee naa la bis bi ma waxee woon ni que vingt cinq millions yi ngeen di dem di noncé da ngeen ko war a liggéeyee boobu boo dégloon weñ ñi ñuy biiw sax mhm. da xam ne li ma wax noonu mhm. ñëpp ñu ngi ko bàyyi xel donc li ma bëgg wax mooy waaw euh, te foofu laay daanee ci laaj bi ma laaj mhm. mooy ñun yamuñu si proposé ñu ngi def ay solution fan yi par exemple maire bi def na benn initiative bu rafet wax dëgg ne yàlla mooy dañoo créer benn cellule de communication cellule yàgg na créer yàgg na liggéey ñu ngi leen jaajëfal leen vraiment ñu ngi liggéey liggéey bu solo ñu waaye euh, euh, dañ ko yéex a def parce que dañoo créer benn cellule communication boo xam ne ñoom léeg-léeg ñu ngi wax euh, li nga xamante ne ni moom mooy ay retombées ak ay information yi ngi koy partagé. ñu ngi leen koy jox nekk ñu ngi ñu koy jox vraiment. Mhm. Mhm. loolu ñu ngi yéen ban gis-gis ngeen am ci loolu. <coughs> loolu gis-gis bi ñu ci am mooy mhm. lu rafet la. moom laa la wax sànq sam ba may tàmbali. nit ki booy ànd ak moom wala ngeen di bokk langue politique. du sa ennemi sa adversaire la. l'adversaire tu dois le respecter. bien sûr parce que ñun ñoo bokk askan wi ñun ñoo bokk HLM. Mm-hmm. bu ñu liggéeyee lu baax ñun ñëpp lañ ko liggéeyal dañuy tàcc bu ñu liggéeyee safaan problème dafay am. Mm-hmm. moo tax bu ñu defee lu baax nga encouragé leen. Mm-hmm. waaye bu ñu defee safaan tamit nga wax leen ko. ndax bëgg HLM euh, ak sopp ak fonk bi ñu leen fokk moo tax ñuy waxee nii. waaw waaye nee naa a des hommes et des femmes de valeur et de dignité. waaye ki nga xam ne moo bu mënul dafa war delloo léegi. nga jàpp dafa tële. fi mu nii def nañ cinq ans. Mhm. le maire devait démissionner. Mhm. le maire devait rendre le tablier parce que mënut. Mhm. jox nañ ko léegi cinq ans bàyyi nañ ko mu liggéey il avait les coups de franche mënoon na liggéey waaye liggéeyul. comme que liggéeyul nag dafa war bàyyi ndaw ñi. mag la. Euh, jàmbaar la góorgóorlu na. lim liggéey Sénégal ñu ngi koy ndax ñëpp jamono ñoom Moustapha Niasse mi ngi ànd ak ñoom jamono Senghor. ñoom a ba. politique HLM ñoom ñoo ko taamu ba tax na la nga xam ne moom moo jëm ci ay euh, lamay def ay initiative yi muy def waa HLM dañu ànd ci li nga xam ne moom moo jëm ci initiative yi ñuy def ba tax na moo tax élection wu ñëw rek balaa ñuy dugg ci affaire élection yi sax nañuy bàyyi ba ci kanam waaye daal jàpp dafa jàpp ni loo gisee ñu koy tabaat fii liggéeyam lañ xool moo tax ah bu dee liggéeyam lañu xool nañ xool élection yi di ñëw ndax dinañ ko tabaat nit ci moom ay njàccaa lañ HLM moom fi mu ne nii yaakaar nañ yeewu nañ mos nañ hmm. sonn nañ ndax gis nañ li maire bi lim leen jural. Mhm. waaw maire bi liggéeyul wax naa la ko. te ñoom gis nañ ko jéem na nag waaye mënut mag la. Mhm. dafa bàyyi la jeunesse ñëw. Mhm. élection yi passé 2014 bokkoon naa ci daal yi gën a néew ci ay at. waaye bokk naa ci candidat yi gën a mag ci ay xel hmm. parce que xalaatal naa leen loo xamante ne nii sama programme fi ne nii moom lañ doon exécuté waaye mënuñ hmm. comme que mënuñ nag nañ bàyyi man ak équipe bi ma àndal hmm. bu ñu ñëwee ñu liggéey jeunes yi fi nekk yéen laay waxal maa ngi di woo un lancer un appel solennel fal leen jeunes yi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk HLM di fa dëkk dafa fa yeewoo xam la mooy problème waa HLM yow acteur de développement nga wax nga ko léegi da nga jàpp ni maire bi dafa defar ay tali tëb HLM 6 tey nga nekk tey acteurs ndax da nga war a xaar ni tey maire bi def jéego yooyu wala itam yow it ci sa wàllu bopp waroo mën a def ay jéego ci biir commune bi war a xaar meer bi. waaw li nga wax dëgg la. Mhm. ci loolu sax lañ ne. moo tax gis nga bu ko defut ba ba ba ba at bi digg man dinaa jël initiative defar ko. Mhm. te loolu su ma ko waxee ñi ma dëkkal xam nañ ni li ma wax nii lu mën a nekk la. Mhm. ndax 2010. Euh, damaa jiite benn association bi ñu wax ànd liggéey suñu gox. Mhm. association boobu ñoo ma porté moo tax ma nekk candidat en 2014. ok quatre ans yi dañoo liggéey ci suñu gox lu am solo ba yeneen koñ yi dañ toppandoo. Mhm. parce que dafa am en management li ngay dégg ñuy wax solution transitoire ak solution alternative. Mhm. Euh, lépp loo gis rek war nañ ko mën a utal pexe. Mhm. ñun ba ñu ñëwee ñi dëkk HLM 6 xam nañ ni koñ ba dafa lëndëmoon toog nañ 15 ans yoo xam ne lamp tàkk fa. Mhm. comme que toog nañ 15 ans yoo xam ne lamp tàkk fa ñun suñu association bi. Mhm. équipe bi ñu àndal maa ngi leen di féliciter di leen remercier au ñu jiital ma. équipe boobu noonu ñoo taal lamp yi. lu neexul dégg la ndax solution. transitoire la yéen a génne seen koppar. jënd ak waa koñ ba. génnee ñu def ay études. gis ni mën nañ jënd ay règle double étanche. dina régler dina régler problème mu électricité bi. Mhm. ñaari kër ñetti kër yu ne ñu installé fa benn. Mhm. dem ut ay support métallique si benn menuisier mu liggéeyal ñu ko ñu taal koñ bi yëpp am na yeneen koñ ñuy toppandoo bokk ñu bëri noonu lañ ko électrifié. Mhm. waaye comme que ñoom ñu si ëpp duñu liggéey dañuy xool wàllum politique. pour contre ma moo tax. ñu ñu ut fa ay ay lampe euh, lampadaire. yoo xam te ne nii dañuy ñëw installé ko lu baax la. parce que ñun su suñu góogóoloo ba ñu gis ñu ñoom loolu ñoo ko waroon a def. ñu def ko loolu dañ koy dañ koy dañ koy rafetlu. beneen bi mooy saxal nañ fa ay garab boo demee diggante HLM 6 ak HLM 5. Mhm. Euh, am na ay zones yu bëri yoo xam ne ni garab yi ne ci di féexloo ñun ñoo ko fa saxal def nañ fa dara. Mhm. beneen bi moom mooy amoon na ay dépôt de gaz. Mhm. fexe nañ ba jëlee ko fa. def ay pexe ak ay procureur yi nga xam ne ñu ngi ñuy dégg fi mu ne nii nekkoon ci gox boobu. wax na ne lii bis bu tàkkee ñun ñëpp duñ fi bàyyi kenn. donc loolu tamit def nañ ko fa. bëri na ay action de set setal yoo xamante ne nii tamit def nañ ko fa. maanaam ci tënk daal. ñun dañoo dañoo def dara ba pare. ay acteurs de développement lañ comme ni nga ko waxee. Mhm. ba tax nit yi euh, wóoluñu. Mhm. ba ba mën ñoo denk mhm. ay responsables ñu ñu dem aux élections nekk conseil municipal. mais mbirum assainissement itam sonal na leen ci seen gox bi nga xam ni euh, dëkk ngeen fa mu di HLM. HLM dafa bëri ay kilifa yu fa dëkk rawatina HLM 6. am na ay anciens SEMGA chef d'état-major général des armées am na ay beaucoup de généraux et de colonels. Mm -hmm. gouverneur de Dakar sax foofu laay foofu la nekk. ñun ñëpp may dégg. dañoo dem dox dem seeti leen parce que xam nga nit nee naa la boo bëggee euh, faj jàngoro da ngay dem def diagnostic ba pare. boo demee si docteur nga ne docteur bi damaa feebar. docteur bi danaan la mbaa lu lay metti. nga ne ko suma bopp ma metti. mu ne la kañ la commencé metti nga ne ko bërki démb nelaw nga nga ne ko nelaw ma. lekk nga balaa ngay ñëw nga ne waaw mu jox la ay garab defal la doog lay faj ñun loolu lañu def dañoo dem seeti gouverneur yooyu noonu waxtaan ak ñoom mhm. ne leen lan moo undu HLM la mooy cosaanu HLM ñu mhm. nañu euh, président Senghor moo amoon initiative taxawal HLM mhm. pour dimbali ñi nga xam ne nii euh, ay revenus la ñu am te revenus yi nekkul revenus yu mag donc HLM yëpp yoo dégg noonu lañ ko taxawalee waaye dañoo xam nga Sénégal yi ñu si ëpp su ñun hmm. on est dans des en détournement d' objectif hmm. gars yi dañoo détourner objectif li ñu ci woon def defuñu ko si tënk hmm. ba tax na euh, ñun am nañ solution bi parce que ba gisee li si président Senghor bëggoon a def. Mhm. au début. Mhm. nga xam ne bëggoon a def ay batterie en crapaudine pour affaire wu bi. nga xam ne ndox bi bu ñëwee du takk yooyu yëpp gars yi defuñu ko. Mhm. donc ñun xam nañ yan emplacement la woon a nekk. te loolu yaakaar naa ne tamit maire bu doon gëstu na gëstu yu ñuy def. dina ko gis. donc problème la problème la problème bu mag surtout côté HLM 6. ndox bi dafay taa. am na nag beneen problème bu gën a mag. mooy lan. HLM ñi ngi toog ci benn bombe écologique. ma wax ko fii saa su nekk mën naa takk jëppët yàlla bu yàlla def loolu. Mhm, mooy lan. mooy benn canal boo xamante ne nii. Mhm. mi ngi jóge ko mhm. yaraax. traversé yenn kër yi. te à tout moment. kanaal boobu noonu mën naa exploser. Mhm. parce que li li li liñ daan li li taxaw ñu tabax ko. ak mhm. contenance bi moo waroon a def si ay mhm. déchets ak ay ndox yu bon war a dem évacuer. dafa dem ci loolu lañ tabax ci loolu lañ tabax. waratu woon. waaye dafa dem ba dafa ëpp doyo maanaam dafa dem ba fi nit ñi dafa màgget. te loolu. war ah, directeur ONAS bi defoon na fa visite dem xool situation bi mel moom ndax indi na leen assurance ci li ni mel. waaw xam nga ñoom dañuy wax rek. fi mu ne nii moom it projet la fii Sénégal dama ragal ni HLM surtout lu bari projet la. Mhm. dañuy yëkkati dara ne projet la ñu tegaat yëkkati dara ne projet la ñu tegaat moo bu yàggee duñ def dara. Mhm. man jàpp naa ne ku ñu fal mandat da ngaa war jël ñaar wala ñetti projet nga liggéey ko ñoo xam ne yow boo fa jógee ko lii la ñuy def. Mhm. yow journaliste d' investigation nga. nga maire bi fii keroog ma laaj la question. moom ba mu ñëwee lan la wax ne la def pour HLM. lu bàyyi dama lay bàyyi nga tontu ko rek. defut dara maa ngi lay laaj maa ngi lay mm-hmm. tontul defut dara dara defu ko fa. Mm-hmm. maire ba à part setal li ma la ak déguerpissement. Mm-hmm. ak aide yi muy joxe. ak léeg ñu tàllal loxo comme ñuy yalwaa ñu jox ñu ndimbal. amul dara la mu fi def man maa la ko. Euh, ba tax na rek mbokk yi ñu ngi dalal euh, Daouda Ndoye yi nekk acteur de développement ci commune bu HLM nekk itam conseil municipal foofu ca gox bi moom la ñuy dalal tey ci émission gox bi waaye Daouda Ndoye li ñu fi jotoon lim yëpp dafa mel ni yow euh, benn gis-gis nga am mooy. wutu maire bi daal di jël HLM liggéey ko ndaxam loolu lu yomb la itam. loolu dina yomb du yomb. Mhm. lu yomb yàlla buñ ko xam mhm. lu yomb woo dal asgor asgor da ngaa war a ñeme lu métti mhm. ba may song miir HLM boobu maa ngi doog am samay fanweer at néew na ñu ñemee def loolu mhm. donc ñun liñ gëm ak liñ jàpp mooy nit ki la valeur n'attend point le nombre d'années li nga war a def def ko léegi dañoo bëgg suñu gox fa lañ juddoo fa lañ yeroo te mbindeef bu ne balaa ngaa dem war ngaa def dara ci kaw suuf moo xam da ngaa tabax école da ngaa tabax jàkka danga ngaa tabax église mhm. da saxal garab wala daal loo xam ni nit yi danañ ci mën a jëriñoo wala xam-xam boo bàyyi mhm. waaye kawtéef ñi fal la amoo benn njëriñ mhm. liggéeyoo yaa ngi dégg si ndimbal rek nga yaakaar loolu du liggéey loolu loolu kenn xamul lim mu doon du dëgg waaw moo tax ma ne la ñun dañuy wax ni nous réaffirmons notre candidature pour les élections yi nga xamante ne ni mooy ñëw li jëm ci wàllu municipalité bi. dinañ ci ñëw incha allah la nga xam ni moo jëm jigéen ñi xam nga ca commune ba dañuy liggéey ndaw ñi ci li jëm ci wàllum euh, financement yow xëy na euh, wàllum financement am nga ci xam-xam ndax am jigéen ñi tey lañu soxla yéen yéen a ngi leen ci dimbali ngir ñu mën a daan seen doole ci wàllu yu ni mel comme yow ni nga ko waxee acteur de développement nga ci gox bi ndax am la war euh, ji nga xam ne ñoo di soxna yi yéen a ngi leen ci jàppale. ñu ngi ciy jéem lu ñu mën. ndax euh, boo nekkee acteur de développement nga ame association mhm. léeg-léeg dooy amee doole wala kattan bi tax nga mën a liggéey mhm. waaye euh, bu fekkee ni am nga volonté ak yàlla dina la dimbali mhm. au delà de sax ñun bokk nañ si ñu njëkk wax ni ñun dañoo war a créer benn mutuelle de santé pour les HLM mais ba mujj na ko réaliser waaye suñu idée la suñu la ko déggee lu baax la ñu ngi koy jaajëfal si loolu waaye ba léegi mutuelle de santé bi dajul ñëpp waxoon nañ nañ créé benn boobu defaguñ ko benn mutuelle d'épargne et de crédit pour waa HLM. Mhm. at mën nañu jël benn koppar def ko si gafaka googu di lebal waa HLM. Mhm. képp ku dëkk HLM ñu lebal la waaye bu ñu lay lebal tamit bu ñu ko def par parloo. Mhm. boo nekkee militant ñi lebal la boo nekkul militant wala gëmoo la ñu bañ la lebal. bu ñu la falee da ngaa war a tëjee ndey ji seex da ngaa war a tëjee njaaxaanaay. nga màndu si liñ la jox. waaw donc ñun ñu ngi siy def ay jéego am na ñoo xam ne nii ñu ngi leen di lebal mhm. si suñu doole mhm. waaye nag buñ ko defoon à une boo xamante ni moo ëpp doole wala ñu nekkoon meer danañ ci gën a góoboolu mhm. ndaw ñi nag ci li jëm ci wàllum xëy wi ndax yéen ci xalaat ay jéego ngir soppi li ni mel ndax wax nga ko ñu bari ñu ngi toog di déglu di naan ataaya ndaxal la dañ jàpp ni looloo war a doon solution bi solution bi njëkk mooy formation balaa nga naan naam ne fa. yéen ciy jàppale. ñu ngi leen di jàppale luñ mën euh, ñu ngi ciy góogóolu. Mhm. Euh, doole gi demeewut noonu waaye ñu ngi ciy ñu ngi ciy góogóolu. Mhm. ndax ndaw ñu bëri dañoo bëgg liggéey te amuñu formation bu dëgër. Mhm. te boo seetloo fi mu ne nii formation yi nga xamante ne nii moom la état bi di proposé. nekkut formation yu adéquat ak ñi nga xamante ne nii moom mooy le marché de l' emploi. Sénégal ba léegi te loolu c'est dans de manière c'est un constat général. Mhm. amuñu école mécanique bu am solo. Mhm. boo xamante ne nii dina former de nouveaux mécaniciens gis nga. Mhm. pour wan la ne état bi sax ñoom duñu visionnaire. gis nga fii léegi dix ans. yi ngay gis ñi nekk ci mbedd bi yëpp dootuñu liggéey. ñi ma romb si mbedd bi sori da mhm. ñu si bari dañuy nekk chômage technique ak di yalwaan hmm. waaw parce que oto yu bees yi génn technologie technologie la mhm. te oto yi màgget yi ñi ngi commencé yàqu Okay. donc ku jënd ci oto bu bees boo bëggee ñu dépanner la bu dee amoo technologie boobu noonu wala jàngoo ko doo mën a dépanner léegi dañoo woon anticiper. Mhm. fi mu ne nii ba léegi créé gu ñu école pétrole yaa ngi dégg woo nañ créé benn école pétrole boo xam ne nii ay institut am na fi de institut am na fi waaye du institut yu am doole hmm. université pétrole lañ woon créé am assez de yoo xam ne bu pétrole bi génnee bu ñu bëttee ay teen hmm. ñu mën koo exploiter suñu bopp fi léegi vingt anticiper nañ ko bañ dañoo yéex hmm. waaw sànq yaa ngi doon laaj ci coronavirus bi sax ñu ngi jaajëfal comédicaux yi hmm. président ñun ñëpp ay sénégalais lañ hmm. gaal bi ñu nekk bu suuxee ñun ñëpp ñooy suux bien waaye nag euh, dafa jeex si ay ay mesures yu mu jël sànq wax naa la ko hmm. moom day subir réagir réaction baaxul da ngay action moo gën réaction ndax fi ne nii am na lu bëri loo xam ne def nañ defuñu ko mooy lan euh, ñi ngi bàyyi le mars am na ay cas yi nga xam te ni ay cas yu ñu détecté la ñooñu bitim réew la jógee lan moo ñu te tëj suñu frontière ba léegi tëjuñu ak yeneen ni li ma wax rek pour dafa mel ni ñun suñu njiit yi ñu si ëpp si ñoom amuñu vision. Mhm. moo tax ma ne la mairie HLM. Mhm. au mhm. woon na créer ay ay wala def partenariat ak ay école de formation. yu am njëriñ si jeunes yi. ñuy dem jàngi foofu mécanique. ñuy dem foofu noonu di jàng électricité. mais bu état bi ubbiwul ay école euh, moo tax ma commencé si école yi moo moo tax ma ne c'est un problème d'ordre général. mais euh, à un niveau plus restreint. au niveau de la commune. maire bi woon na mën a def dara. ok waaw ak fonds yu ndaw yu mu am parce que xam nga léeg-léeg. xaalis mooy yéene bu sell mooy liggéey mhm. mais bu dee yow sax xel ak sa xol bi yëpp li ci ne mooy noo muccee yokk sa njaboot mhm. ak nooy moo see dara mhm. soo ba jant soo yaa ngi xool noo amee oto noo tabaxee ay kër di concours ay kër di dàq njiit fal nañu la pour loolu ñu la fal pour nga réfléchir waaye réflexion xol bu sell la moo koy def boo amee yéene pour liggéey solution yi dina ñëw exemple foofu dañoo war a jël ay euh, commune HM kese rek am na ay école de formation ñooñu muy may bourse dafa leen war topp woo leen mooy bourse ak bàyyi bu ñu mhm. paree woon nañ leen recycler ñu liggéey pour HLM encadré leen encadré leen mhm. donc bëri na yoo xam ne mhm. nii war nañ ko mën a liggéeyal suñu bopp xëy na ñu ngi ci càppaandaw eh, émission bi tey nga ne am nga yéene diriger li nga xam ne nag moom moo di commune bi HLM nag xaw na yaa tey lan mooy sa projet bu njëkk ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci HLM ginnaaw da ngay uti seen baat waaw projet yi bari na li njëkk ci projet yi mooy déjà toog def atelier de réflexion mhm. atelier de réflexion yi mooy dañoo war xool ay euh, solution pour am xaalis ndax xaalis mooy liggéey mhm. xam nañ ne budget mairie bi soixante pour cent commune bi ci boppam moo koy lekk ci ay charge yi nga xam ne ni moom la am mhm. li njëkk maire war def ak équipe am mooy dajale commission finance ñu xool nan la ñuy def ay pexe ba am xaalis bopp boobu yow jiite woo commission ci maire bi non non jiite benn commission li dal ñu bëri moom a dal boo fa nekkee nekk ndaw duñ la nangoo déglu boo waxee sax dañ lay reetaan mhm. waaw duñ la jël au sérieux mhm. waaye euh, ñun maa ngi wax tamit intellectuel yi may dégg yëpp ñu mhm. ñu fexe ba ba dugg ci ci ci politique ñi naan du ñu politique yëpp yëfi gone la ñuy wax bu dee da ngaa bokk si gox di fa yeewoo di fa màggee ëpp na ngay bàyyi ñuy décider pour yow ok donc li ma bëgg wax rek ci projet yi mooy fi mu ne nii am na lu bëri loo xam ne dañ ko war a taxawal donc mm. euh, euh, fan la la ñuy def ba am xaalis. yéen a ngi nas. dañuy da ngay nas mm-hmm. nan nañuy def ba am xaalis ñoom xamuñu ko bu ñu ma laajee ma wax leen ko wax naa ko waaye nag ñu maa déglu mm-hmm. parce que man nee naa la wàllum finance mm-hmm. am naa ci tuuti xam-xam xaw ma kéemtalaay la ma xam waaye xam naa ci dara donc bu fekkee ne ut nañ xaalis ba pare ñu xool ñu ñu def benn genre brainstorming mooy échange d'idées boo demee Harvard University loolu dañ ko fay jàngale maanaam de la discussion jaillit la lumière même les plus grandes guerres se sont terminées autour des tables de négociation bien sûr ñu xool mhm. li nga xamante mooy problème mu HLM mhm. suñu paree ñu def la hiérarchisation des intérêts maanaam ñu xool li nga xamante ne nii mooy li gën a yàkkamti mhm. ah li nga xam ne HLM waaye danañ ko danañ ko danañ soxla parce que xam nga lii problème bi ñu la falee lan moo tax ñu fal la comme marketing la. Mhm. il faut placer les HLM au cœur du processus yow lépp looy yëkkati wala nga koy teg. Mhm. wala nga koy sumb waa HLM ñoo ñoo war a tax. da jàpp ne yooyu ay projet la yoo xam ne boo ko ci tegee askan wi dinañ ci adhéré wu. askan wi dinañ ci adhéré. ok ñu jógee ci loolu wax ni HLM. am na ay conseil yoo xam ne ne ñoom euh, bon euh, for nañ ko si yooyu ba ñoo xam ne ba ñu bari nañ dem ci élection yooyu ma ci ab Abdou Diouf Ndiaye conseiller la ñoom Lalla euh, Lalla Aïcha ñoom ay conseil lañ maire bi ba ci bokk danga jàpp ni ñooñu ñëpp bu ngeen tasantee ndax danga jàpp ni dana yomb. mën naa bañ a yomb waaye ndam mi ngi si loxo yàlla. Mm-hmm. yàlla mooy fal ku ko neex. yow waxal da bëgg rek nga yëkkati sa loxo les bu ko toppatoo. mais est-ce que tamit euh, jot ngeen sekk ay kuréel mun a dem élection voilà xam naa leen ki nga fi tudd kenn si ñoom suma mm. xarit na nit ku baax la ñoom ñëpp ñu baax lañ mm. waaw man lu baax laay wax si ñoom lool laa leen xamal mm. waaye mënuñu dañoo tële buñ tëlewu kay jaww ñi présenté wu fi mu ne nii HLM mag yi man lañ àndal ndaw yi man lañ àndal góor ñi mën nañ àndal jigéen ñi mën nañ àndal. ah Lalla ay Aïcha moom dafay def ay kii foofu de moom. Ah, dafay def ay attraction ku baax la ku baax la ah, ah, xam nga lu tax ñun duñu fiir moom lay wax. Mhm. politicien yi dañu bàyyi fiir. Mhm. boo gisee sama om politicien di def lu baax nga naan kii ak bon defu fi dara Lalla Aïcha ku baax la li muy def pour askan bi yàlla na yàlla fay ko ko. Mhm. ñoom ñu si bëri si ñoom ñu ñëpp ñoom ñoo bokk objectif. mooy liggéeyal askan bi donc suñu leen gisilee ñun ñuy liggéeyal askan bi te ñun ñuy wax ni li ñuy wax ni dëgg la te ñu sellal suñu xol. su ñuy def lu baax ñun war nañ ko ko reconnaître donc ñoom li ñuy def vraiment c'est à saluer c'est magnifique mhm. waaye mhm. du loolu kese moom mooy tax euh, nga mën a falu mhm. lu baax la waaye am na yeneen yi nekk ci ginnaaw yoo xamante ne nii il faut nga am xam-xam bi ak xarale bi pour mun koo def ndax jotul itam ngeen boole doole seen doole ngir euh, la nga xam ne moom moo jëm ci développement wu commune HLM bi ngeen bañ ci xool li nga xam ne moo jëm ci wàllum politique ngeen boole ndoo seen doole daa di yëkkati gox bi ñi bokk teen ñooy laxasoo ay goj ñi bokk jëmu ñoo mën a ant foofu maa ngi lay wax ni maa ngi bokk si benn kuréel mën di nuyu au passage di république des valeurs bu président Thierno Alassane Sall mënu ma koy bañ a tudd voilà un patriote et un républicain ñu jox la salaire vingt millions nga ne nañ ko wàññi ndax askan wi dañoo sonn ba cinq millions musuñu koy gis ñu jox la trois auto de fonction nga ne mënoo war auto yëpp yow benn sa doom benn sa soxna benn nga ne yow kese yaay liggéeyee foofu ñeneen ñu soxlawu ñuy am mosuñu koy gis te a Alassane Sall loolu la def ñu bëgg la signaloo benn contrat boo xam ne at mu ne Sénégal da siy perte quatre cent milliards par année pendant cinquante ans mu nekk vingt huit milliards nga ne signé ko kookoy homme de valeur moom la ñu a dénk Sénégal moo tax ma moom waaye pour répondre mooy ñi mën a ànd ak ñun bañuñu ànd ak ñoo xamante ne ni seen loxo ak seen xol sell nañ bëgg nañ HLM te yàlla tax bëgg nañ liggéey mhm. bañuñu loolu. benn nit rek mënul gagné élection. benn nit mënul gagné élection. waaye ñu mën a ànd ñooy ñooy ànd ñun danoo gëm ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ay référence pour Sénégal. Mhm. maam Borom Touba maam Limam maam Abdou maam Baye Niass ak cardinal Yacine Thiandoum ñun ñooy ñooy suñu référence. Mhm. te. ñooñu sax may wax ne état ba léegi jot na ñu jël seen ay ouvrage di ko jàngale ci école yi ndax xale am repère donc bu fekkee ni yow ñooñu ñooy sey référence ñun pare nañ pour ànd ak yow waaye bu dee Karl Marx mooy sa sëriñ Napoléon Lénine Machiavel ñooñu nga xam ne ñoo yàq àdduna bi ñun du ñu ànd ak yow donc bu yóbboo sax ñu perte waaye ñun homme de valeur lañ homme de dignité lañ moo tax ma waxoon la sànq Thierno Alassane mhm. mais dama doon préciser rek ni ñun ni ñu mën a àndal ak ñi nga xam ne ni gis nañ ni seen xol sell na mhm. duñ def calcul politicien ñun ñoon la ñuy àndal pour liggéey mhm. kon donc euh, jéego bu njëkk bi la la war a doon ci buñ la déggoo bu baax euh, li nga xam ne moo jëm ci élection yooyu yow daal ak nu mu ci mel da ngay samp sa nënd si kàttanu borom incha allah bu ñu yàlla may tawféex ñu jàmm may ñu wér askan wi bëgg ko tamit ndax duñ def loo xam ne ñoom bëgguñu ko bu ñu laajee pour ñu nekk candidat mhm. dinañ ko def du ñun ñoo bëgg nekk candidat di yëkk suñu baaraam mhm. nit yi ñoo wëlbati ko gis ñu liggéey bu rafet ak liñ fi jot a def avec peu de moyens wax naa la ko sànq. Mhm. ñu joxoon nañu yow da ngaa war a nekk candidat moo tax ñun ñu yëkkati suñu loxo nag kon ñun dinañ nekk candidat. Mhm. askan wi ni ñu ko demandé woon 2014. bu ñu ko mhm. laajaatee. bu dee gis nañ ne am nañu plébiscite ñëpp bëgg nañ ñu nekk candidat. solo yàlla dinañ bokk si jongante yii di ñëw. ñu ñu tëjee ko ci wàllum tàggat yaram néew na léegi li ngay dégg HLM ci wàllum tàggat yaram de lu waral lool. luubal ak jubadi. non ci tàggat yaram bi ci tàggat yaram laa lay wax de mm-hmm. lu neexut dégg lu lu kéemtaan laa lay wax lu doy waar mm-hmm. am na at boo xamante ne nii dañoo viré trente million ci compte benn nit bu jiite HLM boo xam ne dirigeant sportif la mm-hmm. trent millions nga jox ko benn nit lu ñëpp bokk mu lekk moom kese dégg nga wax xaalis bi fi mu war dem la demut amut càmbar amut dara amut lenn loo xam ne nit ñi dañ koy leeral donc lu yéeme la daal lu yéeme la bu fekkoon am nga kàddu bu mujj te laajuñu la ko tey euh, euh, lan la nga ñu ñu tëjee ko. maa ngi sant yàlla beneen yoon di leen nuyu kenn ku si nekk si yéen góor ak jigéen mag ak ndaw di leen wax ni. les HLM aux HLM moi. Mhm. léegi loolu loo bëgg a wax foofu maire bi dëkkul HLM. maire bi dëkkul HLM. ñi may wax ñiy déglu xam nañ li may wax. maire bi dafa dëkk ni nee na fa la yeewoo bu jógee buy dawal otom ci biir HLM lay euh, dawal otom te du yéegal vitre am da koy wàccee ku kaw woo mu taxaw wuyu la waaw bu dee dañ lay woo nga lay ba génn ci kay lu baax la waaye yow boo wéeteeg sa borom xam nga li ngay def dëkkul HLM fu mu dëkk waaw xaw fu mu dëkk fa yeewoo waaye est-ce que tax nga dëkk fa déglu bu baax li ma lay wax bu fekkee ni yow da dëkk HLM te defaloo waa HLM li tax ñoom ñu fal la est-ce que fa nga dëkk ah loolu laajaat gis nga ma ma jeexal wax la lu yéeme mhm. xamoon nga ni Sénégal mosuñoo am benn président wax ne sénégalais la. ñu ngi lay déglu xam nga lu tax loolu. Mhm. ñu si bëri si ñoom nee nationalité la ñu am bu fii tàngee dañuy daw. loo bëgg ñun ñu ngi bëgg sénégalais. ak mhm. président boo xam te ne nationalité sénégalaise kett ndeng kuddum la am. Mhm. donc maire bi dafa war ne un ressortissant des HLM même bu même bu fekkee ne juddoowu fi. bu fi ñëwee mu liggéey pour waa HLM. bu dee dafa ñëw mhm. dëkkoo HLM dañ ko xajal loolu nga bëgg a wax bu dee dangaa dangaa juddoo HLM tamit te ñëw di di jëf safaanu ñi dëkk HLM mhm. boobu tamit dëkkoo HLM kon maire bi ngeen ko xajal foofu waxuma dara man maire bi ëpp na ma wax ko dara mag la mhm. du ma tëg dara si dara waaye nag dëgg moom fu ñu fekk foofu lañuy ñuy bàyyi kon looloo nekkoon kàddu gu mujj gi mbokk yi sant leen gërëm neen ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM